yéen ñaara moom aljana ak seeni doom yéena ko moom lépp lu dul garab gi bu kolaal ko laal bu jege këram gi pexem seytaane fa jaar rambaaje awaak aadama ma ko sa wujja moom garab gi lii na ma fekkoon na aadamay war aljana iblis gannaawu ko di fen ba sonn ba awa mos garab ga daal di koy sàkk ko aadama mu daal koy lekk fa aadamay bëgg a wane doom ba yàlla yabal jibrilu wax ko mbir yaa naana ñu fafa soso fafa bilaa nirana bur def leen a dugal ji tanaan leen bu kenn mooy bu ngeen di mooy di dem niiraana hmm, yéen ñaara moom aljana ak seeni doom yéena ko moom lépp lu dul garab gi bu kolaal ko laal bu jege këram gi pexem seytaane fa jaar rambaaje awa ak aadama ma ko sa wuja moom garab gi lii wóor na ma fekkoon na aadamay war aljana iblis gannaawu ko di fen ba sonn